ci atum 1864 yemmook woote almaami Maba Jaxu Ba ci la Maam Moor Anta Sali mi meññ Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñëw ak njabootam ci dëkk buñ naan Poroxaan di dëkk boo xam ne ni nga ko waxe mi ngi nekk ci région wu Kaolack ci département bu Nioro du Rip ci arrondissement Paoskoto digganteem ak Nioro nekk ci soriwaayu juróom wala juróom-ñetti kilomètre moom la sëñ Mbàkke Mor dëkke woon. bañ ci tegee ñaari at si la soxna su tedd si di maam Jaara Buso mi meññ Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul génn àdduna ci atum 1866 ñu denc ko nag foofee ca Poroxaan ci fanweeri atam ak ñett dara. njabootu maam Mor Anta Sali dellu bawul ak Kajoor gannaaw ba Maba Jaxu Ba daanoo ca somb ci xare bu métte métti sang bu tedd bi di cheikh ahmadu bamba xaadimu rasuul di ki amoon cofeel ci wéyjuróom wu jigéen woowu di maam jaaru buso euh, diggante boobu nag poroxaan mel na ne raaf na xamatuñ ci lu bari waaye teewul sëñ Tuubaa daana bàyyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekkee ci résidence surveillée yi dafa daan fonk nit ñu jóge Saalum maanaam boo jógee Saalum lu mu xat-xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna si wala xam nga barab bi wala déet da ko daan bàyyi xel gannaaw soppoon ko lool ngir bañ soxna si weet ci dëkk bu gent moo tax bis mu digal doomam Cheikh Mouhamadou Bachir dem Poroxaan dekkal dëkk ba toppatoo kër kerkeraani maam Jaara Buso Sering basiiru dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi serigne basiiru fanan na ci nonu ba ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Mouhamadou Fall qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne mu melne Touba ca la tàmbali ci atum 1952 di amal ay bésu fàccaliku soxna su tedd soosu di maam jaaru buso looloo indi tey màggalu poroxaan di màggal gu rëy gu àdduna bi yépp di wuy si sëriñ Moustapha Bassirou di taawu sëriñ Mouhamadou Bassirou nekkit ku am farlu ci liggéey bi fi wéy juróom bu góor bàyyi woon gannaaw def ci ay jéego yu rëy ci wuuti gi mu ko wuutu sunu boroom jàppale ko ak njaboot gi ba mu mën a soppi dëkk bii du poroxaan def ko dëkk bu xéewalee amay jumtukaay yu mucc ayib yu ànd ak jamono am ay jumaa ay forage ay tali électricité ak yeneen ak yeneen ci atum 1999 ci la sëriñ Moustapha Bachiru Mbàkke taxawal fondation Mame bu Bousso ngir sàmm ak dundal lépp lu aajo ci poroxaan fondation Mame Diarra

ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat gu ñu yeesalaat regroupement Mame bu Bousso ak tabax gu ñu tabax makaanam ñu koy wax résidence Mame bu Bousso ngir di fa dalal gan ñii di ziyaari si waaye lii gën a yéeme ci liggéey bi fondation bi def mooy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jàngal xale yi jigéen ñi alxuraanal karim ak jikko yi lislaam santaane daara jooju nag lañ duppee daara maam jaara bu poroxaan sëriñ Moustapha euh, moom la yàlla doole tawfeex jooju may ko xaas ba mu jëkk woote loolu euh, daara maam jaara euh, woote ñëpp képp ku di taalibe te mu ko bokk moom ba mu ko defee alhamdulilah rabbil aalamiin li nga ko waxee ñoo waxuma la sax ñu wuyu sëriñ Moustapha waaye dañ koo gàttandu nee na mi ngi sant yéen waajuri gone yi. nee na ñoom itam lañ sant ndax ku yàlla baaxee ba nga tudde maam jaara doom. yàlla baaxee la ba nga yóbbu ko ca daara maam jaara mu di ko ja jàngal. nee na boo nga sant yàlla te sa dal bu baax. te am te xam ne am nga doom ji jafe. ñaan suñu borom. nee na mi ngi ñaan suñu borom. li nu yéene ci ñoom ñëpp yàlla defal nu ko. nee na xam ne ne ñoom ñoom ñi nga xam ne andi leen ngeen fi ñuy jàng. nee na na ma wax na day seenu baax ak seenu jub ak seenum njàng ñoo fa gën a far ñoo fa gën a ñor ci loolu boppam ndaw yu jigéen ñi ci jàng ak sàkku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi la ñuy wuyoo di turu maam jaara jigéen ju baax meññ kii feeñ ci jamono ñu koy wax cheikh ahmadou bamba xaadimu rasuul ca njalbeen daara maam jaara buso ci gis-gisu ak xalaatu sëriñ mustapha bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Maam Jaara su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam rawatina xale yi jigéen ñi ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni toll tudde ko ko ngir wéyal ndonoom ak jikkoom mbir ko sëriñ Moustapha di sos ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ju njëkk la daara traditionnel yi ñu ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënut a soppee ko ba du dañu nekk daara moo woo ci ñooñu ñu ñu bokk ci xalaat bi. ñi ngi xam ne ñoo ñooy saytu ngànk itam njàng mi nga xam ne mooy njàngum mu bees mi moom mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi bu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi ngi xam ne ñu wax dëgg yàlla ay doom daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp mu boole leen ci dirib lu mat ñetti ak ci jàngat man la ñuy tërale daara ji. ma dem ziare sëñ Moustapha Bachir yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeem mu ne man di daam lu mu mbébét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi nga jël sa doom bu am juróom benni at wala juróom ñaari at mu dajale leen poroxaan def daara maam jaar bu sëñ bi loolu daal bëgg naa ndax mën naa nekk bu ma nee nag lan mën a nekk ma ne ah sëñ bi de loolu yéeme na de ndax man ma nekk inspecteur Dakar yi su ma mission mooy suqali njàng Jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer. ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax benn baax ma ñëw Jurbel ànd ak samay équipe woo bi ne ko la ma santoon day am na lu ma jot a def taxawaayu daara maam jaaro bu soobu poroxaan méngoog nag gis-gisu boroom xam-xam yi ndaxti lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه wallahu bima taamaluuna alim kii di cheikh Mountakha Bachir gannaaw ba magam ju baax ji taxawalee liggéey bi def ci dooleem ak ñaqam ak xam-xamam moom tamit mu fas yéene ko jàppale taxawu ko ngir wéyal ko jaar ci ay tànkam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yéen daara ji am na ci xayma lu toll ci juróomi téeméeri ndaw yu fay jànge di ay ndongo yu jigéen ñoom ñépp ñu dëkk ci dëkkuwaay bu rafet di maakaan bu ñu tudde internat boo xamante ni kenn ci ñoom du ci fay lekk kenn ci ñoom du ci fay ndox kenn ci ñoom du ci fay courant lépp daara ji moo ko yor bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi nii nga xam ne noonu noo noo noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na quatre-vingt-cinq millions cent vingt mille cent quatre-vingt-dix-neuf francs at mi weesu nii rek waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme comme comme exemple. daaray Maam Jaara Bousso mooy kërug liggéeyukaay privé yi ëpp li mu sos ci ay xëy ci département bu Nioro. bokk na ci lu toll ci. ñaar ak juróom ci ay jàngalekat. ñaar fukk ak ñaar yi ay jigéen lañ te juróom-ñett ñi ci ñoom ca daara ja nu ñu jàngee ba tey ñu jël leen ñu fay jàngale. doon jàngee fii si daara man jaara maa ngi fi ñëw 2005 ñu ji laa doon jàngee ñu jël ma fi may jàngale. Ah, man maa fi njëkk a mokkal alxuraan ci jamono sëñ Moustapha Bachir ah, jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ah, ci man lañ wattoo alxuraan. fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ñu wattu alxuraan at ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxna jaare yoo xamante ni euh, jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale euh, ñaar fukki xale laa yor administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak léttkat yi lim bi jéggi na dayoo ñooñu ñépp daara maam jaaru bu so moo leen di fay Euh, yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci tam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla euh, liggéey bu ñu ko defal fi ci poroxaan euh, barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tërale mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alxuraan ci riwaaya warsh lañ ko jàngale su mokkalee alxuraan itam ba nga xam ne wóoru nañ ni kii kat xëy na war naa mokkal alxuraan ko jébbal ci ay loxo yoo nga xam ñoo ñu koy at mu nekk gone yi nga xam ne fay mokalé Cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. su ko defee am commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon Cheikh Mouhamadou Mountakha. moom sëñ Mamor mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organiser ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete euh, commission bi it ni mu leen di seete mooy euh, dongo bu nekk ci dongo yooyu dañ koy boole koo xam ne moo koy diglu su ko defee euh, kenn ku nekk ci ñoom dañu la booleeg ñenti sëriñ daara yo xamne yag nañu jangal alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ab djuroom jox ko moromum ba nga xamne gone gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti sëriñ daara yo xam ku ci nekk lamu mu ca seetlu ca ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamne keuyit wo woowu ci commission bi ci xayma biñ sosee daara ji ba de lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci ay xale yu jigéen maanaam 185 wattu nañu alxuraan wattu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alxuraan yi ñu ci réew muy concours yu wute daara ji lu ci première place bi ak lu toll ci ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamante ni daara ji am na ko ba ñépp teg ci seen bët bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi di ko jàppale ñu demee ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yàlla na ko yàlla yërëm soxna soosu des foofee ca makkatal mukaram xam ni dafa dem ba jeex takk ci soxna su tedd sii di maam jaara biñ duppee daara poroxaan moom cheikh muntaxa bachir jàngalul na ko alxuraan téeméeri yoon ak juróom-benn ak i xasaayit ak juróom-ñaar fukki taysiir ci xëpru mam jaar Buso ak ci yi xale jigéen ñi liggéey bu am solo bii ci daara ji tax na ba jur yu bari di fi indi seeni doom jóge fu nekk ngir sàkku si xam-xam. voilà euh, Moustapha Ndiaye donc euh, expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc. Euh, euh, nekkoon euh, conseiller spécial président Abdoulaye Wade nekkoon aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État waaw li mu poussé ba ma yóbbu ko moom moom euh, ñetti mbir la bu ñëk bi mooy dama xam projet daara ji ndax sama sëriñ sëñ Moussa Bassirou moo ko sos ma xam njëriñ li ñaareel bi itam comme man intellectuel la maa ngi jàng xam-xam mu àddina solu ci lool ngay dem ba xam ne itam euh, alxuraan itam mooy dëggu xam-xam. Euh, bi mu ñëwee rek gis naa ne euh, soppeeku na bu baax a baax dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw wane ko itam rakkam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkaat seen ustaas. donte amon nañ oustaz bu len den jangal fi ci ci kër gi mune legi ma di jàngal bu ñëwee eh, nal leen foo yem yow dama taaw fële du ni ni nga wara a leg li ba nopi itam ñomit it roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew di topando toppandoo ni muy eh, saware ci jang beeg ni muy teel a ni muy eh, nafare alxuraan bi ñuko ci roy ba dana dana papa nag maa war a ngénte waat tudde ma soxna jaara ndax nga yóbbu ci daara ji xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñoo ëpp fop ña fa nekk di jàng looloo waral Serigne Issakha Bassirou administrateur général fondation bi am yéene nag yaatal liggéey bi ngir ñépp a bokk def seen yéene ci daara ji jàppale ndongo yu jigéen ñi gannaawit ñeenti téeméer yi membre daayira bu nekk war a joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bees. gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage parrainage ni ko turi wone walla ndeyi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu maam jaara

alhamdulilah yàlla man doon ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg ndax damay wax ne ñetti junni daayirey maam jaare yi nga xam ne am nañ existe na ñooy jënd carte bu benn daayire bu ne jëndoon jëloon meneen maam jaara boole ko ci eh, la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit lu fi mu toll lu ñi ko ñi ko bëgg ak li si daan lu mu rëy rëy matul loolu kon mën nañ ne mën na noonu daj àgg fi saa ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum maam jaara di ko dundale ñetti junni ci weer wi kon nag loolu lañ bëggoon a gën a xamal nit ñi. ci jubbu gën a xam leen xamle liggéeyub Soxna Jaara gën a leen xamle liggéeyub Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan te Cheikh Moustapha Cheikh Mountakha mii fi nekk continuer ko li ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne Pastef bi mu ko def te ji mu ko def. waaw yàlla def na nag loolu teew ñu ngi dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu jël mën a yokku. Euh, donte duñ mën a egg ci lii way bi di bëgg lépp waaye ñu gën di ko jéem yokk ba tax moo tax ren yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk yëpp euh, am nañ ab euh, dortoir yu ñu li mu yu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren waaye yokk bi moom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk yombut jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi eh, nga xam ne comme ba léegi ci niñ ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci dolli juróom fukk muy ren teg nañ benn boo xam ne eh, ñetti at lay diire waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki ki kiy jànge fii moom eh, am ko ci ci ñetti at. waaw bu ko defee boole ci nag saaru euh, franco lañu ko def franco arab nga xam ne lim bu wax lim waxtu yu toll yi muy am ci arab ak ak ak diine ji moom lay am ci france beeg wàllu mathématique ak yeneen nga xam ne day am 12 heures làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yamu làmbool waaw euh, bu loolu lépp jàllee nag ñu doog cee dolli nag formation professionnelle bi am na boo xam ne. jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak walu couture. juróom benn maam jaara laa yor juróom benn maam jaara yi bu nekk juróom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukki nit da ci nekk ñaar fukki nit yu nekk benn maam jaara moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaara ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk ñooñu ëllëg ñi ñuy jàngalaat ëllëg ñuy jàngalaat feek àddina am loolu di am alxuraan dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggey bi seigne Moustapha Moussa Mouhamadou Bassir def xeyna mom la ko yalla jagle waye liggey bu reey la bo xam ne bepp la ko defal ñi ngi sant ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamante ga su ëllëgee ay doomu julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akal ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñom ñi fa nek ñëpp. أعوذ billahi minash الشيطان rajim ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة Je m'appelle Mamdiar Boussodien, j'habite à Guédiawaye. J'ai intégré le Dara de Porokhan en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustafa Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. Alhamdulillah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mondial de Polokhan. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retourné dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en trois ans, je suis au collège en quatrième avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyed Mustafa Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mamja de Porohar. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mamja de Porohar. Merci du fond du cœur. moo nu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi mi nga xam ne mooy suñu lépp soxla wu noo am dara tey ëllëg loolu moom nu sant ko euh, ci li nga xam ne lépp gis nañ ko ci lépp muy pagguteefam euh, lépp mu ñu ba mu ñu faggul kon noo ngi koy dollee sant di di gën a yeesal suñu jaayante di gën a yeesal suñu njébbal euh, di gën a gën a sóobu ci yoon woowu nga xam ne moo ko moo moo nu ko moo ko yeesal euh, yoon de technicien euh, nu di cee jéem a dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayante ci moom di yeesal suñu suñu suñu ci moom di yeesal suñu suñu suñu yéene ci moom euh, di di fas yokk suñu itte jëme ko ci moom na ci nag lëggéeyal ko ci maam jaara ci turu kilifa yi fi nekk. ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen santit ci seen teewaay kon assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم